diaspora ak Sénégal Buzz maa ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu tey Médoum suma xarit maa ngi koy nuyu bu baax. waaw suma xarit la. xam nga di nuyu tamit site bi tamit xam nga ah. boroom site bi di deeb mu ngi ba Canada maa ngi koy nuyu ñëpp ak ñiy seetaan ci live am ñëpp di nuyu population Pikine ñëpp. diggante sëll bu ndaw bi ak Gris Bordeaux. gars ne ama xeexam assuré. Ah, Gris dafa mën a xeex. tiitoo ci loolu. wala ki nga indi wóolu la ko. non ñi wax xeexu Ama Baldé assuré wu ban mbër moo ko mos a duma. kan moo ko musa a duma. duma naa Ama Baldé ba toog ci kawam. kan moo ko mos a ba mu dajee xeexkat bi de leeral na lépp. ah ba mu dajee xeexkat bi. keroog bi fi ama avance ñu duggee. avance Malick Niang fu nee la dugg ñu génnee ko. mu jël ko mu ñëm jël ko. mu bëreeg moom ci manière moom nuyu ko ma koy nuyu bu baax suma rakk ju baax jooju Malick Niang maa ngi koy nuyu nag bu baax damay suma xarit la nag waaw keroog bi mu ko jëlee avance boobu billaahi wallaahi tallaahi kër gu nekk la dugg ñu delloo ko waaye bi mu duggee fi tagul da ko jël daan ko si manière yaa ngi may dégg sa duñ fa Gris Bordeaux Ama mooy xeex. ama mooy bëre ama mooy tuus ama mooy du duy stade bi ama mooy daan daa am may fàttali ñun dañoo jëlee fii Pathé Baldé yóbbu ko Colobane mbappatu Zallo Pathé daan Gris Bordeaux. Pathé Baldé. waaw yóbbu ko Colobane. Pathé Baldé daan Gris billaahi wallaahi wa tallaahi daan ko ba toog ci kawam daan ko ba toog ci kawam Pape Sarr moo moom du ko weddi Zallo du ko weddi billaahi wallaahi wa tallaahi léegi nga ne sànq Ousa Ousa Sow Zil daan ko di ko daanaat Gris Bordeaux ñëw buux Zil Balde yàq combat bi boobu mu yàq la awama di defaraat nii waaw na gaa yi yaa ngi bi gis nga combat boobu yàqu woon Gilles Balde wër ko ndomb di ko rokos Gris Bordeaux jóge fële ci barrière bi buux Gilles Balde moom la Ama Balde di eggali nii mu mel nii bu duggoon Ama Baldé dafa des teel. waaw mais lamb moom xam nga dafa bari. prix liggéey rek lañ lay fay nit kenn moomu leen. beneen saa xam nga lamb fair-play la. waaw ñu ñaan yàlla le 5 février allah yàlla may ñu ndam ci kaw Gris Bordeaux. première waaw foofu suñu toolu maam la déggoo li ñu lay xalaat waaye wàll. yow foo ne jëriñ ko mais lu foofu ñoo moom ñoo xam fi nawet gi di sax. nga seen tool ñoo xam fi ñàmbi gi di sax. fi nawet gi di sax se gi di sax foofu suuf sax mën nañ ko fa ñu ne Ama mooy yàlla bi ñu ne Siteu mooy yàlla le 5 février la Ama Baldé di gërë bëre ak Gris Bordeaux

dina xam ne ne Medina googu moom ëppale wuñu fa Pikine gii nag ñoo ko féppale te bu soobee yàlla 5 février mu xam ne Ama il le meilleur de sa génération loo neex rek gi tam gi tam dafa gin caas gin gi taas gin taas gin gi bala sañ ñu ñu jëlee jaar jàll la rek ndax li suñu kanam la xaar giri moom romb nan ko ba pare rek. romb nan ko rek waaw romb nan ko. ñeenti at suñu toogoon xoolal fukki at bu nu ñëwee liñ daan def dañ koy double ama boo ko xoolee ñeenti at yi mu toog bëriwul nelawul toogul ne yaaj xëy entraîné ngoon entraîné bu xëyee. bu bu ngoonee mu ñëw fii ñu contact waaw. ah capp caaw xam ah, parce que waa Fass dañoo ne woon dañoo ne woon Gris Bordeaux bi mooy sa dernière chance. waaw loolu la ñu waxoon. ñu waxoon lañ ko andi. waaw mais capp yi xoolal maanaam. maanaam gis nga gis nga. Ama Fass rek. gis nga. moo tax ma ne ma fental ko way benn woy woo xamante nii way wi am na waykat bu ko woy waaye dama ko reprendre woy ko ama ndax bii nii première sortie bi ci la ñuy gis lu garaaw waaw lu garaw loo xamante ne ni nit bu gëjee bëre yaa ngi dégg uh-huh. première sortie day garaaw lan nga ko fekk xoolal signature rek signature ah jàkkaarloo rek mu mel nii dama ne ko ama yal na nga gudd fan jaatu fa laay nga loolu am na yeneen séquence waaw am na yeneen harmonisation yoo xam ne mu ngi ci biir damay bàyyi bu open press bi moko ci may noogo moo bees dàq waaye su singal bi ko génne noonu singal yi ko génne noonu déedéet waaw dama bëgg yéen ñi nga xamante ni dama leen a da ngeen a baax rek ma jël leen sax waaye waroo leen jël lamb ji amul wax amul wax ah? lamb ji ah. amul wax du tax amul wax diggante Gris ba Ama Baldé amul wax jëf la boo xoolee Gris Bordeaux xool Ama bokku day wallaay taalaay du ay caaxaan dëgg neexul la lii seen différence Gris Bordeaux mag la 97 ba léegi ngay bëre ñaata at ah 97 ba léegi ngay bëre ama kañ la dugg ci làmb ba kon kii mag la ak xale kon jarul ñu ciy waxtaan wala ñu ciy werante moom Modou Lo ñun la ñuy xaar barke Seydina Muhammad Ama Baldé Modou mooy sunu combat Gris Bordeaux mi ah dañuy may suñu chance may jàll rek jàll daan ko jëpp tëb ko jàll mais Modou mooy suñu bëree mooy suñu lamb ndax Modou Lo yaa ngi dégg danoo signé teg moom contrat ba affaire bi nar a am mu yàq ko xaw ma da koo yàq ma dafa feebar waaye tane na ak jàmm ak salaam. wér booy bi jël ko ñu bëree ñu ci ci njëkk ak teraanga. waaw Modou Lo dàll rek jaar jàll rek ndax nag Gris Bordeaux moom xam ne dañuy fa dañuy xam nga daf dañoo entraîné loo xam ne woo bëri waa Réserène waa Réserène bi porté malade loo wax comprendre nga dem na wiiri wiiri ñëwaat na duñu toog nañu dañoo doon njaboot am ah, dafa doon njaboot yaa ngi comprendre nañ jox ñu Gris Bordeaux ñu kënam tiku fi xam def am ñu ngi def ay quelques sarax jàkkaarloo waat Modou Lo loolu dong la. mais doomu jàmm gën na euh, waaw waaw moom moom dafa war a xam ne nee mooy yàlla min bi. waaye borom dëkk baa ngi nii. du nee na mooy yàlla min bi <laughs> waaye borom dëkk baa ngi nii tam. bàyyi maa la bàyyi maa la barke Serigne Bamba ku ci yab Ama da ngaa fekk muy nelaw maa ngi dégg wax ji nag affaire yaa yooyu ko yaa yoo jóge fu ne mais Ama pare na eh. ama pare na ama leen gën a dof. Ah, ama mooy borom yalmin bi non non nee na mooy mooy yalmin bi. mais kii mooy borom dëkk bi. barke Serigne Saliou Mbacke kenn yebu ci ama maa la wax loolu tey wax jee fi nekk nekk nag xoolal mais barke Serigne Bamba kenn yebu ci doomu bi kenn du moom ñi mu bokkal yëpp mbër lañ. balde balde bi kenn